est-ce que bii mooy sa première expérience ci C'est ma première expérience ci Bercy. mais bi nga ñëwee Bercy ban pressentiment nga njëkk a am. yeah amazed dama dama kontaan vraiment parce que du saal bu ndaw du vraiment loo xamante ne dañ koy sumb mu doon lu tuuti kon buñ la ci boolee ndam la ma ci sante yàlla bu baax baax a ñu nit pourquoi pas rêver 2015 Pullman. mu 6700 places. effectivement tey nga war oh. places. ku nekk di rêver effectivement est-ce que amul track bi places en tant qu'artiste? Euh, xam nga artiste moom dafa am lu ko war bu yéegee sur scène rek day génnee jikko artiste bi noonu lañ koy defee te je pense que tonton Youssou coaché nañu assez pour que ñu war ko mën a def donc ñun tamit dañu on est très honoré je suis très honoré nekk fi kon dinaa ci jox ak bi si war. xam naa ni yàgg ngaa dégg Bercy. mais engouement bi am ci Bercy ren bi mhm. yow bi nga ko déggee la la def à 14 jours de l' événement y' a plus de billets pour 20 300 places. Wow, affaire bu grave. la xam de limite donc euh, nga vraiment c'est du sérieux donc euh, lu buñ la ci rek ci ngay gis ampleur bi mais ñu ci sante Yalla, di ci bu baax nar ko jël rek nar ko def ba mu vous ngay diaspora dans quelques heures waaw ñu ngi ñu ngi ñëwaa di rendez-vous di leen wax ñun moom ñu ngi à tout à l'heure soit nous te remercions merci à vous merci